messieurs les ministres, les collaborateur du ministre, des ministres, chers collègues. Monsieur le ministre de l'Injustice, vous êtes venu remettre en cause la constitution blindée qui ay été une déclaration du président Macky Sall que képp ku fi mënti ñëw dootu ci mën a laal dara monsieur le ministre yaakaar naa ne dialogue national man dialogue national maa ngi ko tuddee njuuma national def lu la neex te kenn du ko faj monsieur le ministre yaakaar naa nañ ko def yoo gis nañ ko waxtaane moo ko war a jiitu puisque vous parlez de dialogue lii tey dañoo waroon bala ñu koo def ñu waxtaan ceeg nit ñi parce que nous sommes représentant représentants du peuple mais duñu Sénégal monsieur le ministre force traque nag moom force forcé ñëpp traqué leen d'accord naa ci monsieur le ministre monsieur le président Je remercie les 42% des Sénégalais qui ont voté contre le président Macky Sall parce qu'ils ont compris le cri, le cri de cœur des opposants. Le cri de cœur des, des opposants, où sont les promesses des, ministres, des, des, conseils des ministres décla, dé, euh, décentralisés Monsieur le ministre, monsieur le président, maa ngi laaj élèves yi nga xam ne ba léegi seeni bourse ñu ngi koy jooy ana promesse bi monsieur le ministre maa ngi wax ne li tax les 42 n'ont pas voté sentir nañ ne sunu doom yi les marchands ambulants parce que tout mën na ne peut pas accéder dans les bureaux ba tey seeni problème rek wul monsieur le ministre les femmes les 7 virgule cent pour euh, les 7 pour cent de de euh, de l'émergence panier de la ménagère sentiru ko kon ñu ngi leen di gërëm bu baax les 58 nag ki ont voté dama ne caw saxiir falu naa lu ma neex lay def waxoon nañ leen fii ne leen sombi bu njëkk ba neexul muy les sept ans bu leen ko sombi ñu ne dañuy sombi bu leen ko sombi ngeen ne da ngeen koy sombi bu leen sombi waa ji mënul ngeen ne da ngeen di sombi ba def ko 58 pour cent voilà maintenant les résultat ça ne fait que commencer dama wax ni man comme li mu wax premier ministre su ma ci wax ndaxte am na ñu fi jaaroon dañoo indi Abdoul mbay mu premier ministre démocrate technocrate xamul li fii fii metti ñu jële ko fi indi ndeysaan ma femme mi Touré muy accélérer la cadence vers les prisons ba tax ñii ñu exiler leen ñii ñu ñii ñu tëj leen ci kaso bi te defuñu dara ñu wëlbatiku nag indi Boun Abdallah Dionne le danseur de Mbaras xam naa dañ ko wóoluwul moo tax ndax comme je l'ai à chaque fois premier ministre day am ambition doon président de la république su fekkee juróom-ñaari at yi président Macky Sall def am fi ñetti premier ministre remplacé leen doyu ko ba muy force track kon nag wax dëgg yàlla ñoom war nañoo seetaat seen bopp fogeele séeréer mexe sim naa nuun mexe sim naa nuun o séeréer ka jaga jom o séeréer jabe te jabe jikwel ka naxa nuun anda keta laya lay <laughs> bàyyi leen ma waaye bàyyi leen ma waaye ketalaya fof ka naxa nuun tous refe te ndigil xan nu xeej xan nu bog a ñaam nu ñaam ke xan nu bog a nu yer ke xan euh, euh, basil ke njang njang ke kuuta layna ka naxa nuun saaxle ka ka marché à reculons saaxle ye Ablaye Wade reet una mene wiin we ka ñaamoogu yeroogu daxa soxla den to xet e o leng yeta garna mene bo ndiiki no saaxle tiye faaxate no saaxle Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, pour terminer, pour terminer, je demande en, en même temps que moi la tombe où est enterrée euh, où entrée la constitution blindée bi ñu waxoon ne dafa am wala yow daal yow ñëw pour dajji ko borom mbaxana mi sàll ngaari lam tooro jërëjëf.